général te ki nga xam ne suñu sëriñ suñu yaakaar tey ëllëg sëñ Bass Abdou Khader dimbale ko ci wàllu organisation bi ci euh, jàppandal aussi sëñ Abdou mi yor wàllu communication bi euh, délégation bi ànd nañ ak lu tolloog 160 étudiants yoo xam ne ci pôle santé lañu ñu bokk ak économie ñu jox recteur rek mu tënk ci ñaari baat laata sañ bi di ko ñaanal ak mbooloo. waaw di jéggalu ci kàddu yu sëñ bi dañoo ñëw ëndaale délégation université Alioune Diop bi nga xam ne. depuis daaw euh, jotoon nañu autorisation comité d'organisation bi pour ñu ñëw ci màggal gi loolu nag lu ñu war la parce que université Bambey turwee ci nekk Bambey waaye université bi nekk biir Bawol la te mission yi ñu état bi di jox mooy lépp luy nekk ci Bawol amal population bi njariñ ñu dugal ci suñu loxo loolu moo tax lu toll ne màggal gi nga xam ne benn la ci àdduna doon benn ci Afrique doon benn Sénégal université bi mënul nekk fi ba pare bañ ci dugal loxoom niñ ciy dugale loxo nag mooy indi dongo yi étudiants yi indi jàngalekat yi indi personnel administratif bi ñu lëkkaloo indi ay équipe ñu liggéey loo xam ne yaakaar nañ ne am na fi njariñ muy mbiram wér gu yaram ñi nekk santé communautaire nga xam ne li ñuy jàng ak li ñuy liggéey ak li jàngalekat yi di jàngale mooy nu ñuy wattoo ay feebar ñoom ñoo njëkk a ñëw def nañ fi lu mat ay bis di liggéey ci feebar yi ak yu dul wàlle di liggéey ci mbiram ñam délégation téeméer ak juróom-benn fukk la ñu indi ñi nga xam ne la xel ci communication ñu comité bi yor communication comité bi ci ci télé yi ci reportage yi nga xam dañ koy def ci résidence bi ñeneen ñi ñi ngi liggéey ci mbiram koom-koom loolu liggéey bu mag la te ñoo ngi sant bi communauté bi amee confiance ci université Alioune Diop dénkuñu ko ndax xool koom-koomu màggal gi lan la ci Sénégal lan moo nekk ci ginnaawam ban modèle économique la lu am solo la loolu nag xam nañ ne ñun du liggéeyu ñaari fan ñetti fan moo tax dañoo tàmbali liggéey bi ci màggal gi waaye dañ koy continuer jëmale at mële di ñëw jële màggal gële di ñëw te bëgg nañ balaa muy egsi loolu ñu trouvé yëpp incha allah ñu tënk ko ci document ñëw jox leen ko ne ñunkat ci suñu gëstu koom-koom lii lañu gis ne moom la màggal gi di indi ci koom mu Sénégal liggéey bu mag la waaye def nañ ci juróom fukki enquêteurs yu nekk ci Touba fi mu ne ñu jël ñetti chercheurs yoo xam ne seen xel dafa màcc ci jàngale koom-koom ñu leen di encadré ñi ngi fi teew ñeneen ñi maa la ko doon euh, wax léegi sëñ bi. Euh, comité bi it waxtaan naag ñun ci université bi nu ñuy liggéey it ci daara yi daara yi murid yi maanaam wàññi leen ba xam exactement lu ñaata lañ ñaata nit a fa nekk fu ñu jokkali ko loolu dañ koy def ak kër gi jéem ko tënkiit ci document indil leen ko ñeneen ñi ñu ngi liggéey ci ndox mi loolu daal moo ñu fi indi léegi nag loolu bu koy def it ñu ngi respecté li Cheikh Ahmadou Bamba wax maanaam euh, jàng. Euh, ndaw ñi jàng lañ war a jàng ñu teg leen ci yoon comme ñun ay jàngalekat nañ nag ñu ñëw won leen fii Touba liggéey fi am na njariñ ci seenum jàng mais am na njariñ aussi ci euh, Sénégal euh, moo tax chaque année bu soobee yàlla engagé woon nañ dinañ leen indi ñoo ngi leen di sant di leen feddali suñu ziar ci màggal gi. Guèye mi nga xam ne moo jiite université Bambey ak mboolem délégation bi mu àndal di ñi nga xam ne daaw la ko defoon ren jiite mu yeesalaat ko muy jëmu joo xam ne itam li xam ci moom parce que li xam ci moom ak bëgg Sëriñ Tuubaa te ko xereñ ci liggéey la moo tax bi ma ko sëriñ Abdul Abdul Ahad waxaatee démb ba yégal ma ne ak si ngeen leeral na may liggéey bi li ngeen fi defoon daaw lépp yéeg nañ ko leeral nañ ko sëriñ bi ren jiitam itam fi ngeen tàmbale woon lépp itam leeral nañ ñu ko moom itam incha allah danañ ko leeral sëriñ bi kon ci turu Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne lépp lu ñuy def ci yoonu rek mooy ki yor caabi ja kon ñu ngi leen jot li cant ak ngërëm yéen ñi nga xam ne ci doon yëngatu ngir dàkk ci bëggu Serigne Touba ndax li nga wax rek mooy li ci gën a wér lu tax ne seen université bi nekk ci goxub Serigne bi màggal gi mënta accès te defu leen ci ay jóob kon koy rafetlu bu baax leen ci gërëm di di ci soññ itam ci yi nga xam ne bëgg ngeen ko def xalaat yooyu nga xam ne fas yéene ko def jàpp ci ci wàllu màggal gi ngir xam li nga xam ne màggal gi mi ngi koy indi ci wàllu koom-koom ak it wàllu daare yooyu yi nga xam ne itam tàmbali ngeen ci ab liggéey ngir xam daare yi nun toll ak ña fa nekk ak nu ñu defee ak nu ñu dundee loolu lépp itam am na solo ndax bokk na ci lii gën a jàpp la liggéey bi ndax lépp loo xam ne yaa ko danga koy saytu rek bala ngaa xam la ci ne ci jafe-jafe wala lan moo ko mën a lijjanti faw nga xam lay yëfi dëgg-dëgg li jenn kilifa bu baax daa wax naan boo xamul nu ndab yi tel tool doo mën a séddale kon loolu mooy di ci kon saytu gi ak xol gi moy di jitu kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan ci barki suñu Tuubaa màggal gi nga xam moko santane won te liñ ci daale won jëru diir ci waat ñepp xam nañ ko yalla ngeen ci dajé ak mom te yag ko def te day ci ngërëmam ak tawfiix te barki yalla leen di bi ba fi ngeen ci toll tam ngeen ag ci fuku gëna kawé assalamu alaykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu talal loxo señ bi ñaan Um, Amin, jërë